député yi nekk assemblée nationale yi nga xam ne ñun sénégalais yi ndaw sénégalais yi ñoo leen fal ñoo leen yónni assemblée nationale bañ na ko ba pencum ndaw ñi lañ ko tuddee ñun ñoo leen yónni assemblée nationale bu Sénégal ndawi Sénégal yi ñoo ma yónni ci yéen te bi ñu voté ñun vote boo xam ne la vraiment ñëpp sans exception ñun ñëpp benn kàddu bi la ñu wote ñu ne naa leen leen dànkaaful ne leen ñun ñoo leen yónni assamble nationale demu leen fa pour seeni mbiri bopp te kenn ku nekk ci yenn amaana ñaar ñett ñeenti jabar ay doom fu ne partout ci biir dëkk bi te ci suñu biir ngeen dëkk ñun ak yéen ñooy benn ñun ñooy yéen yéen ay ñun on habite dans les mêmes quartiers dans les mêmes maisons et on se message bii ma leen di yóbbante ñun yàgg nañu leen koo wax nag déggu leen dañuy wax ak nit ñi toujours du dégg waaye boo leen laajee Matar Ba moom dina am lu leen wax ci loolu ndax doomam bi bi mu fi génnee barki dem moo njaay di def yër fi yëfu yara de ku génnee fetal ne day tiire ci kaw sénégalais yi dem nañ ko fekk kër baayam te jëflante nañoo baayam donc kenn ku nekk ci yéen man nañoo jëflante yen yéen amaana ñun ñoo leen bàyyi fi ngeen nekk ba heure bii dalaguñu seen kaw fi ngeen ne nii ñun ñoo leen fa bàyyi ba léegi dalaguñu ci kaw kenn waaye dañ leen di ne fexe leen ngeen bàyyi ko xel ndax doomu aadama bu ne booy jëf jëfal mais xaaral na jëf dafa am conséquence te bu amee conséquence bul fi ñëw nag di victimiser wu di jooy waaw dañoo viola lakk nañu toj nañu waaw def nañu nii sama kër laal nañu sama alal def nañu nii sama oto def nañ ma nii wala ñenn ñi ci yéen di sóob di wax lu leen neex bàyyi leen loolu xel Ousmane Sonko ku ko laal dinañ la laal gis nga président Ousmane Sonko ku ko laal ci combine xamal ne dinañ la laal est-ce que yéen pare ngeen ngeen jël risque yooyu Macky Sall génn dëkk bi bàyyi leen yéen ak seeni ay problème parce que Macky moom paasewul benn luwaa moom day def ay jéyeem ay njombeem bu pare daw génn dem waaye problème bi ngeen am yéen amu leen loo leen dawee benn manu leen daw ñaar te bari ngeen njaboot macha allah ñett kenn ku nekk ci yéen na nga tëdd ak sa conscience ne maa ngi attaqué jeunesse sénégalaise bi maa ngi affronté la jeunesse sénégalaise léegi nag conséquence bu ci juddu geve vais assumer du ay menace de ay promesse la dama leen koy wax ndaw ñi ñoo ma yónni ñu ne waxal ma député yi ndax sa kàddu sori na te billahi wallahi tallahi lazim bi ma coupé sax ak ki mujj yàggul ma tagul juróomi minute ñu ne yeggaleel ñu kàddu yi ci ñoom ne bis bu ñu laalee Ousmane Sonko ba pare kenn ku nekk na waajal boppam amaana sax mën ngaa miiraas sa bopp ba pare amaana man ngaa bind euh, euh, euh, sa nu mu tuddati waay lépp looy def rek préparer ko parce que tu nous as appelé en guerre et on va te répondre en guerre gatsa gatsa la ñuy doxal ñun tooñuñu kenn waxuñu kenn dara reyaluñu kenn dara dañu ne président Ousmane Sonko day bokk par force li Macky Sall bëggoon justice bi defal ko mu laaj mu am quelques juges corrompus yoo xam ne ñoom jël nañ ci li ñuy jël te ba léegi atteindre ñu li nga xam ne moom mooy seen góol yéen la bëgg yoon yónni pour ngeen defal ko sale boulot boobu et vous êtes à risque doo leen ñetti magistrat vous êtes des centaines de députés bàyyi leen loolu xel bàyyi leen xel ne Macky Sall prouvé leen ne nervi amatul ci dëkk bi ndax barki dem boo njaay ba ñu génnee di fi concert de casserole yëngal nañ Sénégal yépp benn doomu aadama yëngatuwul donc bind leen seeni ay testament ngeen teg ngeen jël seeni ay risque amul nag kii suñu yaay la suñu doom la suñu tante la suñu mag la suñu goro la non yooyu amul amul man xaritu usmaan laa woon démb yooyu amul kenn ku nekk ci yéen ngand nga yaakaar nga ne am nga fit bandi nga yaakaar nga ne bandi nga yaakaar nga ne yow Macky sàll jënd na sa ngor yaakaar nga ne yow di nga attaqué Ousmane Sonko déedéet dañuy gat sa gat sa ñun dinañu fayu billahi wallahi tallahi lazim on va répliquer dañ leen koy wax rek pour ngeen xam billaahi wallaahi tallaahi dinañu répliquer man nga koo bañ a gis nag suba sa xel dal walla amaana ba ngay passé loi bi assemblée nationale booy dem sa kër doo fa fekk dara loolu yëpp bàyyi ko xel on vous connaît et on vous dama leen koy wax rek ngeen bàyyi ko xel ndaw ñi ñoo ma yónni ñu ne ma ne ku ñu laal dinañ ko laal gatsa gatsa la ñuy doxal ku laal le président Ousmane Sonko on vous connaît tous on connaît vos maisons ñun ñoo leen fal ñun ñoo leen campagnal ñun xam nañu leen on se connaît tous bàyyi leen loolu xel te nag xam naa ni ay ngand ngeen tam ngeen dafa ah di ñu def dara ngeen di ngand ngand lu ne ngeen wax amul problème loolu yëpp waajal leen seen bopp rek defar leen seen testament miraas leen seen bopp jël leen sécurité bi doy ci sécurité yi nag xaw ma 10 millions man sécurité la la mën a amal waaye préparer leen sa bopp ku ne daal waajalal sa bopp boo waajalee sa bopp ba pare nga xam ne dinañu ñëw te dinañu dal sa kaw wa xale yi wax nañ leen ko soo ko laalee soo ko laalee dinaa la dóor xale yi wax nañ leen ko ba pare nee nañu leen soo leen ko laalee ak fànn boo leen ko mën a laalee ak noo leen ko laalee c'est le gatsa gatsa damaa juum ci mbaxane xaaral ma woon leen gatsa gatsa comme ça ngeen ñu nekk ci benn facette n'est-ce pas parce que bëggumaa juum voilà léegi liir ngeen fii c'est le gatsa gatsa paase leen am leen fit wax leen lu leen neex jël leen micro taxaw leen bintu assemblée nationale menacé leen en tout cas li ma leen mën a wax mooy bind leen seeni ay testament te ngeen def li ngeen war a def te miiras seen bopp te waajal seen bopp te xam ne soo ko laalee dinaa la dóor lañu la wax ñun duñu dem ma Macky Sall moom dinañu xeex ak moom Macky ñamante la waaye yéen député yéen a gën a yomb ñu jot ci yéen xam leen ne dinañu ñëw dal seen kaw il faut le savoir duñ leen wax dara nag kenn du leen wax yal na ngeen paase lépp luñ leen sant rek yal na ngeen ko paase boo leen paree loolu dinañu faciliter ñun tamit ñu fayu on va se venger te bu ñu fayoo bu fi kenn kenn di victimiser wu nag non non non ñun cette jeunesse est déterminée ñun na ñu ginnaaw Macky Sall ba pare ñun ñoo leen fal yéen kenn ku nekk waajalal sa bopp tooñuñu kenn waxuñu kenn dara ñun dañu ne Sonko day bokk te day bokk par force waxuñu leneen ñaanuñu leen laajuñu leen faveur justice bi ñoom jéem nañu fa juge yu bari désesté nañu daw génn ci xam ngeen ko yéen lañu bëgg a ñëw assemblée nationale yenay ñëw toujours assemblée nationale ngeen def seen ñaawteef amul problème ñun daal Sonko dina bokk par force te je vous garantis képp ku signé wala ku voteel Sonko lu dul naka si noonu yow Sonko buy bokk yow doo ko fekkee incha allahu rabbi loolu moom ça je vous le je vous l'assure et je vous le garantis je vous le garantis vous ko ngeen caché signer et mettez le cachet parce que am ngeen fit lool man ngeen tooñ lool man ngeen wax wax yu rëy xam nañ ko man ngeen menacer xam nañ ko man ngeen fen xam nañ ko man ngeen wuruj xam nañ ko man ngeen wor xam nañ ko man ngeen waraj xam nañ ko mais amul problème ndax musu leen ñoo intéressé ndax ñun déjà ñi leen voté loon xam nañu ne duñ leen voté laat yéen xam nañu ñun ñun mën nañ la wax tey kan mooy delluwaat assemblée nationale ak kan moo fa dul dellu ñun mën nañ leen wax loolu déjà fi ma toog nii mën naa leen limal député yi dellu assemblée ak yi dul dellu waaye pour jox leen rek exemple bu gaaw ku mel ni monsieur Toye Dias moom moom dootul dellu assemblée nationale dootul nekk mairie dakaar dootul dellu assemblée nationale kooku moom dama leen koy may rek kado waaye yéen ñi ci des respecté leen seen bopp yéen ñi ci des te ñu xam leen te ñu xamante ñun respecté leen seen bopp ngeen génnee seen làmmiñ ci affaire Ousmane Sonko ngeen bàyyi Ousmane Sonko jëflante ak Macky Sall waaye boo leen ci duggee yaakaar ne ah ñun de vraiment dinañu attaqué waa ji te dara duñ ci fekk da ngeen juum loolu ku ko def da ngaa juum dama leen koy wax rek bàyyi leen ko xel le président Ousmane Sonko. ku ko laal dinañu la laal te xale yi wax nañ leen ko nee nañ la boo ko laalee dinaa la dóor xale yi wax nañ la ko ba pare boo laalee kayitu Ousmane Sonko dinañ la laal loolu kay mën naa leen ko garantiral gis ngeen nee naa leen juge yi mujj yii muy euh, Seydina Issa Ndiaye xaw ma ak kii nga xam ne mooy Awa Ndaw euh, Ami Ndaw ak keneen ki ñooñu dinañ leen laal ne vous en faites pas millions yu leen mën a jox ci kër guñ ko mën a def kër gi dana nekk doomu taal du yàgg dara bàyyi leen leen ngeen seetaan leen waaye bu ma doon yen député yi yéen ak askan wi benn ngeen askan wi moo leen yóbbu assemblée nationale kenn ku bu nekk nag boo tëddee wéetal ak sa njëgënaay yéen ñu bari xam naa leen ndax maa ngi doon waxtaan ak yéen tey waxtaan na ak yéen balaa élection yi laata ñëw am na ci yéen soo xam ne sax ci man la ñu daan ñëw jooy ñu ne naa leen sarax pour ñu investir leen Pastef wala naa leen sarax pour ñu fexe lépp lu ñu man pour président Ousmane Sonko ak yeneen politiciens yi ñëw seen gox yi pour ñu man leen fal xamante nanu li may wax yéen xam ngeen ko man xam naa li may wax yéen xam ngeen li may wax même sama frère bu neutre bi xamante nanu ñun ñëpp dañuy waxtaan ci suñu bi on se connaît waaye dama leen bëgg a yegal ne ndaw penc mi ñoo ma yónni ndaw ñi ñoo ma yónni ñu ne pour ma wax leen ne ku laal Ousmane Sonko dinañ la laal faut pas prendre les risques dama leen koy wax c'est risqué boo leen jëlee risque bi nag foo toog na ngay doxat rek nanga xam ne yow sa xel dootul dal foo toog rek del ngelawal parce que yow sa xel dootul dal ci àddina abada c'est fini dama leen koy wax rek pour ngeen xam boo leen demee voté loi bi assemblée ba pare boo leen pare seen xel bu mu dalati xam leen ne yéen seen seen lépp mi ngi ci xottu gerte loolu laa leen mën a wax seen lépp mi ngi ci xottu gerte vous vous êtes mis en danger et vous avez mis vos familles en danger te Macky Sall mënu leen sécuriser Macky Sall bu nee député Sénégal yi yëpp mën na leen sécuriser fen na leen